bàyyi ba njaay li nga wax ñu ngi ci bu baax a baax a baax courant bi quartier bi ñuy wax Wadeen moo amul courant yaakaar naa ni Youssouf Fall mi ngi ci base bi témoin la ci ak yeneen conseil municipal yi nga xam ne si ñu ngi ci base bi ak sous-préfet daaw bi waa lek ñëwee ñu def étude yi ba pare ba ma xam programme bi ñu ne ñoom danañ ko def yàlla dogal loolu sottiwul bi may defar budget bi ma dugal ko ci waaye ñëpp kuy déglu rajo wala ku nekk rek xam nga ni daaw fonds yi ñu liggéey dafa xaw a tardé bi entrepreneur bi commencé ba commencé indi poto lamp yi ñu dem xam ni fonds yi day tardé ma ne ko arrêté man maa ko wax na arrêté ndax bëgguma woon mu liggéey ba pare te du ma yor xaalis bu ma ko fayee yàlla dogalee ñu dem ba mois de novembre ci la ñu doog a biireel xaalis bi novembre décembre ci la ñuy arrêté ñun li ñuy liggéey ci ki nga xam ne mooy suñu kilifa di trésor foofu mënu fee liggéey poto yi courant bi mu egg nga bëgg ko fee fay loolu moo taxoon ma ne ko na bàyyi incha allahu rabbi ba ñu wote budget bi mu continuer euh, le 17 lañ wote budget bi incha allah lañ ko wote biñ ko wotee bu ko sous-préfet après dañ ko yóbbu trésor bu ko defee mu tàmbaliwaat continuer liggéey bi loolu moo ñu liggéey bi waaye loolu moom fare na boor inchallahu rabbi bu si yàlla ne rek ren ji bu soobee comme xaalis baa ngi fi rek bu liggéey dañ ko mën a fay loolu danañ ko danañ ko dana ko tàmbali léegi balaa yàgg bu soobee yàlla beneen bi sees mooy wàllu ndox mi yàlla dafa dogalaat forage Mbar man maa ko jiite bëgg actuellement ya, fi toll nii mënatul dem ci àll bi loolu xam nañ ko yàlla ci baaxam dimbali nañu ba am yeneen ñetti forage yeneen côté yi mu desoon zone bi nga xam pour ñu def forage yaakaar ni ne yep ñep gis nañ ma maa ngi dem Dakar ci ñew keroog ma ma demee ak ministre sambu Ndiobène Ka bi mako ko ko waxee ma inshallah rabbi dinañ def tuba Ndiéné forage loolu la wax te gëm na li ma wax parce que bi ma nee dinaa la may ay village bu yóbbu fa courant yaakaar naa village yu ñep gis nañ ko courant bi dem na fa bi ma nee dinañ bind bënn benen forage bir Mbar bënn nañ ci benen forage kon suma ko waxee mom dina mëna gëm loolu mu ni ma dina la may fukki village ak juroom pour ñu def fa courant juróom laa toog testé di ko ñëpp di ko gis kon loolu du lu ñuy nëbb incha allahu rabbi sëñ bi ngeen yokkal ma ñaani rek ba loolu mën a si jàmm ak salaam su ko defee zone bi yëpp forage boobu mën ko polariser ba nga xam ne ndox mi ni mu doon manqué dina ko am bu soobee yàlla. tax sax démb ñu lijjanti mu ñëw fii pour mën a renforcer gàmmo gi màggal ba nga xam ni si ndox mi bu lay manqué doo am impact bu bu bu am doole kon. loolu ñu ngi si bu baax a baax beneen bi mooy yoon bi Baye Ben Ndiaye mooy chef de village bi ñu ngi ci liggéey lu am solo ak ñi nga xam ni ñoom ñooy defar piste latérite yépp parce que dañoo bëgg piste boo nga xam ne day départ ci tali bi jaar deegeer ba génn ci daaru béy ba dem ci beneen yoon bi comme ni ñu ko defee ci beneen yoon bi jëm gee ngi neew incha allah rabbi loolu ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am doole ak waa FERA nga xam ni ñoo ma jox employé yi actuellement fi ñu toll ci commune Mbar. ñu ngi liggéey ak ñoom di ci liggéey ak waa Ageroute te incha allah rabbi yaakaar naa ni ñoom tàllal nañ seeni oto ñëwoon fii fekk fi bàyyi rek nii chef bi ba ñu saytu loolu taxul ñu bàyyi dossier bi ñu ngi si lool bu baax a baax kon ñuy sàkku ñaan rek ndax ñaan moom mën na lu ne ngeen ñaanal ñu ndax projet yëpp ak si fii si dëkk bi ba nga xam ni waa tund bi waxuma la Touba Ndiéné rek waa tund bi yëpp dañ ciy jariñu bu loolu jàllee nag ah ñu dellusiwaat ci màggal gi ñuy sant Cheikh Bara Diène ñu ànd ak yéen ci mbégte mi cant gi di ci ànd ak yéen waaye rawatina ki ñu ko tuddee muy suñu wasila muy suñu kilifa muy sëñ Cheikh waa kër yëpp nekk fii ñu ngi leen jox seen wàccuwaay di leen siyaare bu baax a baax kon kàddu yi ñu guddul ak su ko defee dafa xaw a wéradi fan yëpp. motax mu bëgg sax su waxé mako paré rek ñu may ko mom mo commandant mom mu ko ñun ak yeen ñu def ci bu ngeen paré liggéey bi may ñëw nak an namat ak xéw maire Lamp dal conseil municipal Abdou Diallo ñu gën ko xam ci Pape Diallo ak ñaga Niang momit nek conseil municipal ci commune bar Seydou Sey secrétaire municipal bi les deux conseillers techniques Ibrahima Thiam ak Seif Dieng and nañ ñëw fi ak le sous-préfet le ya. commandant de brigade kan. kon ñu ngi sàkkuwaat ñaan bu baax a baax dama bëgg ngeen dalal seen xel bu baax a baax te xam ni dëkk bii dafa bokk ci dëkki Cheikh Issa te man ci péncum Cheikh Issa laa bokk kon yaakaar naa ni li ma waxoon rek laay wax lépp lu ma fi def defalu ma ko ñu fiy dëkk sama bopp laa ko defal ndax taalibe laa ci kër gi te xam naa bu baax li nga xam ne si sooy mii bokkuñu langue politique beneen pa bi la nekk am na benn jour ma ñëw fi di saare sëñ bi maa moom ñoo ànd la ma sëñ bi wax dégg na ko ba ma yàlla na am xaalis bu ma defee loolu balaa balaa liyee agsi kon xam naa bu baax li nekk fii kenn du ma ko wax kon yaakaar naa ni lépp lu ma fi def rek wala lépp lu yàlla dogal mu jaar samay loxo ba ñëw fi rek sama njariñ lay doon lu lu ñuy sàggane moo tax dëkk bi fonk naa bu baax a baax kon nag ñu ngi jégalu bu baax di wàcce suñ kàddu foofu di ñaan képp ku fi ñëw fa nga jóge woon yàlla na suñ borom nga delluwaat ci jàmm ak salaam waaye tamit bala may daaneel kàddu yi may sàkku yéen ñi fi nekk jàpp ngeen ñaanal réew mi ndax réew mi fan yi bari na lool ay tolof tolof soog yi metti na ñi génn àddina ñu leen di jaale ngeen ñaan suñu borom wàccee fi malakam yërmande ba nga xam ne loolu lépp danañ ko a ginnaaw ci barkeb Cheikh Amadou Bamba mi bokk barkeb Cheikh Issa donc ñoo ngi ànd ak le maire de Mbar ci Mbaye Samb and ak délégation bu mu lim léegi adjoint au maire yi nekk Mbar mais également personnalité ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéey bu ci conseil municipal bu Mbar ñu ànd ko commandant de brigade Maridon nga xam ne moom moo fi toogal gendarmerie ñu ñëw sëriñ soye bu ci Touba Njéené teew ci bis bi nga xam ne at bu nekk dañ fi ñëw ngir ànd ko ak yéen ci ñaan yi ngeen di def ci Touba mais gën a yaatal ci commune bu Mbar arrondissement bu Colobane su ko defee sëriñ bi balaa ñuy sori dañ leen di ñaan ngeen ñaanal njiitum réew bi le président de la république ñaanal le premier ministre ak ensemble gouvernement bi nga xam ne moom la dirigé mais également ñaanal autorité administrative yi nekk ci gox bi ñaanal autorité territoriale yi pour ñu mën a wéyal liggéey bi leen sant ci réew mi ndax soo waxee maire am na lu jiite soo waxee su préfet am na lumu jiite mais yu ñu jiite yooyu yëpp ay nit lañu ay doomu aadama yu nekk ay citoyen sénégalais moo tax ñuy sàkku ñaan à chaque fois yéen ñaanal leen ñu nekk ci jàmm ndax ñooñu suñu nekkee ci jàmm rekk réew mi nekk ci jàmm te mënuñu def dara gannaaw jàmm te ku wax waa njenne xam leen ci diine islam xam leen ci yar seeni taalibe ngir lan ñuy topp ay digle yi nga xam ne moom la alxuraan wax te li alquran wax moom la sëriñ yi jëlaat wàccee ko ko taalibe pour ñu mën a dégg li suñu boroom namm ci doomu aadama yi jàpp naa ne am na ay xew-xew yu bëri yu xew fan yi yu ci gën a mooy accident yi nga xam ne gis nañ ko ci Sikilo beneen bi ñu gis ko ci gën saar te soo gisee accident muy am ay oto li ñuy wax kan mooy dawal oto ay nit donc nit ñooñu dañoo war a xam cette responsabilité bu ñu engagé même soo nekkee benn chauffeur nga xalaat ñi nekk sa gannaaw soixante personnes quarante personnes yi nekk ci gannaaw yooyu da nga leen war a suuraale moo tax sëriñ bi muy ñuy ñu lay ñaan ñu ñaan nit ñi ñu ànd ak dal loo yàkkamti yàkkamti soo yóbbuwul ñi nga yàpp su yoon day gudd rek yoon buy gaaw yoon bu gaaw mooy nga dem yóbbu li nga waroon a yóbbu soo defee leneen yoon bi day gën a gudd te jàpp naa ne su ngeen joxee digle yooyu taalibe yi ak citoyen dañ ko dégg dégg ko jëfee ko ngir ñu mën a nekk ci jàmm mën nekk ci dal ñoo koy xaar ci kër gi ndax li ko monsieur le maire waxee xam nañu taxawaay ngeen ne ci diini islam su ko defee ci turu sous-préfet Diom Ali ki nga xam ne moom moo jiite arrondissement bu Colobane ñoo ngi lay ñaan nga ñaanal jataay bi fi nekk yëpp parce que dañoo xam relation bi am diggante sëriñ ak taalibe te ñu nekk ay citoyen te luñ leen di digal mooy na ngeen def lu ànd ak yoon ngeen bàyyi tere yi donc ñun ñëpp suñu ci tënkoo rek liggéey bi day gën a yomb ñi jiitee nekk ci dal ñuy jiite également nekk ci dal loolu moo tax ndaje bi su ñëwee dañuy sawar ñëw fi féttalee suñu kollëre ak sëq lii sëq waa kër gi loolu tax sëriñ soy mu dañ leen di ñaan talalaat loxo yi ngir ñaanal réew mi ñu nekk ci dal suñu nekkee ci dal booba ku nekk nga mën a def li nga lu la war wax ji du gudd loolu mu nekkoon yóbbante bi ñuy indi tey pour jottali la ko di ñaan également mën a yeewee ko comme ni ko wax gaa yi léegi parce également il fallait ñu ñëw teew fi kóllëre boobu la ñu waa kër gi ci Touba Ndiène maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal réew mi ci kàddu yooyu di leen sant bu baax ci turu daayira bi ci seen teewaay ak itam wax dëgg yàlla coono yi nga xam ni jàppante ngeen ko euh, ba ci commandant itam di sant ñëpp di leen fàttali rek ni leen dëkk bi dëkk bu Serigne Bara Diène bëggoon la dëkk la boo xam ni itam man nañ ni dëkkub Cheikh Issa Diène la te dëkk la koo nga xam ni ku leen defal Cheikh Issa Diène nga defal ndax misaal bi ma ciy joxe mooy boo ñëwee Touba Diène ñëpp a ngi fi maanaam taalibe njabootu Cheikh Issa Diène ñëpp ñu ngi fi donte Serigne Souhaï bu Diène la fi yàlla teg waaye koo làmb ci njabootu Cheikh gi am na fi ay taalibe te loolu. lu lu lu lu loo xam ne Touba Guéna la ko suñu borom defal moo tax boo ñëwee defal Touba Guéna rek jàppal ci defal ko Cheikh Issa Diène dëkk bi nag soxla yi bari na lool waaye ni ko Baye Ibrahima ña waxee rek noonu la demee mooy ndox mi moom moom lañ gën a soxla parce que ndox mooy nit ndox mooy àddina mooy àllaaxira ku amul ndox doo jàpp te boo jullee te jàppoo. yaakaar naa ni ñu borom xam-xam yi xam nañ ni jàpp dafa am solo euh, ci jaamu yàlla yépp sax kon nag loolu ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax di am mbégte nag bu baax ci sëriñ Bay Samb wax te di di ci am yaakaar itam di la wax ne sëriñ Bay Samb sa wax jii de buñ mënoon dem ba ci sëriñ Muntaxa Mbàkke ca Tuubaa tey jii ñu yëgal ko ko danañ ko yëgal di ko kat monsieur le maire monsieur kat digal na waa ci forage boo nga xam ne da leen ko war a defal waaye mënuñoo dem ci sëñ Muntaxa de waaye Cheikh Abdou Latif Diène dana ko yëg buñ jógee fii danañ fa dem xamal ko ni ko kat maire Mbaye Samb nee na dina may waa Touba Diène ak forage loolu nag day wane rek suñu mbégte ci forage boobu nga wax yaakaar ni itam yow liñ xame ci yow rek mooy doo wax mukk loo nërut kon rafet na jot ci ne incha allah rabbi forage boobu dina ñëw kon nag. sant nan na ci loolu gërëm la ji tey yaakaar nag di dolli suñu yaakaar di la fàttaliwaat comme ni nga ko waxee euh, rek ci courant waate boobu courant waate boobu itam waxoon nañ ko daaw waxaat nañ ko ren yàlla na am ren nag te mu bañ a mel ni euh, daaw comme ni nga ko waxee ndax tardement yooyu a am beneen bi mooy yoon wi nga waxee tam yoon moom sëriñ son yi bu jenn sax da koo soxla ndax mag la day dem Touba di ñëw tey bu amoon aw yoon jàpp nañ ni yoon woowu dana gën a dana ko gën a dimbali ci wér gi yaramam incha allah dana dana gën a dimbali itam koom-koomu dëkk bi incha allah gannaaw loolu nag dañuy sant bu baax a baax euh, délégation yi nga xam ne teew nañ ci muy euh, sëñ Mor Diop yi wala sax bala ñoo dem ci loolu dafa am lu ñu waxoon daaw loo xam ne monsieur le maire yaakaar yàgg ci waaye itam ñi ngi la koy fàttali mooy ñaari dëkk yi nga xam taxawaayu jàngalekat yi la woon te ñu waxoon ni dañ koy def xam naa ni xëy na tardement moo am waaye ñu ngi koy fàttali te di la ci soññi di la wax ni tey lañ ko a soxla euh, di sant nag bu baax ci délégation bi nga xam ne moom la jabootu sëriñ Mor yabal ci turu daayira bi nag laa koy wax moom la sëriñ Adama jenn xalifa sëriñ Mor jenn yabal fii ci sama kàddu dama koy jaare rek ci ki seen kàddu muy Serigne Mor ibnu Serigne kay Diène la ibnu Serigne Mor Serigne Mor waa daayira bi ñu ngi lay xamante ne yaa ngi mboolem délégation bëgg nañ ci yéen lool yoo xam ni xaw naa mën a def jàngi di wax ni ci turu Serigne Soye bu Ndiaye waa daayira bi sant na leen di leen wax ne loolu de taxul woon ñu tuddee leen ko moom. loolu mom seen rafetal rek la waye taxul mom ñu tudde li taxul ñu tudde ko sëñ Mor moy bokk gi nga xamne ci bokk deret dox na digganteem ak maam Cheikh Issa dox na itam ci digganteem ak Cheikh Mouhamadou ngeen Bara jenn ak serigne ak talib nga xamne da na ko da na ko dundal ta bis bi ñaare buñ koy def dañuy seet ñi nga xamne amon nañ ko leure ak Cheikh Mouhamadou ngeen Bara jenn wala ñu bokk ci jabar ñu tudde len ko kon nak ci turu daire bi ci turu sëriñ soin bu sant nañ leen gërëm leen ñu di leen nuyu ci turu sëriñ ada jenn khalifa mor jenn borom daru yalla na fi gëna yag lool tewé wér ci nuyoo bi khalifatul muridiya sëriñ muntaxa mbakke di ko ñaanal mungkin mu gelol, a noonu la ñuy ñaanale itam sëriñ Abdou Latif Diène xalifa maam Cheikh jenn di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te may ko wér noonu la nuyoo bu baax sëriñ bu jenn xalifa sëriñ Baara Diène di ko ñaanal mu yàgg fi lool jenn te gëna a wér ñuy sant yàlla tamit bu baax a baax a baax tey am mbégte bu baax ñu di leen jottali rekk délégation bi nga xam ni sëriñ aada jenn xalifab sëriñ moor jenn yabal na ko fii ci ab dëkkam délégation bi nag sëriñ seex jenn ibnu sëriñ moor jenn moo ko jiite feggoog sunu waajur ba tey sëriñ ibrahima jenn mun sëriñ njaga jenn feggoog sëriñ ibrahima jenn ibnu sëriñ moor gëti jenn sëriñ Abdou Jenn ibnu sëriñ Gay Jenn moom sëriñ Ibrahima Jenn Baay Lugan sëriñ Galas Jenn ibnu Baay Sidi Njaga sëriñ Mamor Jenn ibnu sëriñ Ibrahima Jenn moom sëriñ Moor Gëti sëriñ Sërif Jenn ibnu sëriñ Ibrahima Jenn Garba moom sëriñ Moor Jenn teew na fi sëriñ Ngagne Diène ibnu sëriñ Ndiaga Niiss teew na fi sëriñ Talla jenn teew na fi sëriñ Naar Diène ibnu Baye Sidi Diène teew na fi soxna yi itam soxna Joor jenn moom sëriñ Aada Diène teew na fi soxna Awa Diène teew na fi ak mboolem soxna yi nu fi fekk yépp nuy am mbégte nag bu baax a baax a baax ci li ngeen da ngeen def te ñu bokk ko te ak taalibe rekk lal ko ak mbokk rekk lal ko waaye sunu yaakaar tey ak ëllëg di mu am seexi saa jenn yal na yàlla yokk ay leram te dolli noo taaf ci barkeem sëriñ Mor Jenn borom daaru ki nga xam ni ngeen tudde bis mate na ko sëkk ndax ab taxawaayam ci kër Seex Isaa waaye jëfam ci kër Seex Isaa waaye jëfam ci mboolem askanu Njanne waaye jëfam ci mboolem waa kër Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul loolu la yàlla dogal mu nangu dogal ba nag bu wér sëñ Mor Jann borom Daaru waajuram bu góor ak waajuru Seex seen ñaari bàyyi seen ñaari waajur yi ñoo bokk lépp kon ak mbokku foofu la tàmbalee foofu la ak mbokku yam waaye sëriñ Mor Jenn borom daaru mbokk gi ñoroon na ko mbokku gi ñoru ko woon moom de li mu xam mooy daa jël boppam jël njaboot bi jébbal ko Seex Isaa te téyewu ci dara te desalu ci dara ngir pas-pasam ak yaakaaram yoo xam ne seen àjjana la njëkk yaakaar kera ba nga xamee ni daaru daara ji seexi sàjjana jëkk rëdd yàlla

koy wax Sori Diop moo jëkk jaayante ak Cheikh Issa Dienne laata Cheikh Issa Dienne di àgg ci sëriñ Touba Xaadimu Rasuul waaye kere Serigne Mor Dienne ba mu jógee ak pastéef bu mat sëkk ak yaakaar ju mat sëkk ak doylu bu mat sëkk dem fekk Cheikh Issa Dienne ndànd jaayante ak Cheikh Issa Dienne kere ku ñuy wax Baye Njar Ka Diop moo jëkk a ci Serigne Mor Dienne borom daru ci kanamu maam Seexi Sàjjana borom njenneeg la gën loolu la yàlla dogal mooy li am sëriñ Mor Jenn borom daru yàlla na ngeen ngi fay dëgg dëggi fay buñ nu dee sukkal ak dinu raamal sëriñ Mor Jenn nu defal loolu waaye sëriñ Mor Jenn jaayanteeg ci bata jaayanteel muy Cheikh Issa Dienne borom njën ak lagan Cheikh Issa Dienne lu mu def ku ne xam na lay doon kon Serigne Mor Dienne tawfeex bi mu am ci kër Cheikh ba illaa yow mi diini du jeex doyoon na sëkk rek ci Kajoor ca jamono yooya yëngu ba bari lool sëñ Mor Dienne daa laxasaayu ànd ak njaboot gi ànd ak taalibe yi ni lépp lu neexul sunu borom neexul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam neexul sëriñ Touba neexul Cheikh Issa Diène day dakk ci mii réew di Kajoor loolu la yàlla dogal Serigne Mor Diène borom kere ba mu jaayanteeg Cheikh Issa Cheikh Issa nee na ko jàkk ni ko moor mu ni ko jenn mu ni ko waxal loo bëgg ma defal la ko Mor Dieng yàgg naa bëgg lu baax sëñ Mor Dieng yàgg naa baax sëñ Mor Dieng yàgg naa sëñ Mor yàgg naa laxasaayu rek ngir Seexi Sàjjenn mbokkam ma sëriñam ba xaritam ba soppeem ba kenn du Seexi Sàjjenn waaye kenn du borom daaru ci kër Seexi Sàjjenn borom njeneeg la gën loolu la yàlla dogal sëriñ Mor Dieng borom daaru dani ko waxuma ko yaakaar jenn waxuma kuy wuyoo jenn waxuma ko sant jenn waaye ku jenn tàbbi ci ab noppam ba faatoo na dem àjjana Seex Isaa ko defal nanu la ko defal nan la ko àjjana la ñëpp bëgg te yombul sawara la ñëpp ragal yal nanu ci yàlla musal ci barkab Seex Mor Jenn borom daru mi ngeen tudde bis bii sëñ Mor Jenn nag ci njenn ku ko tudde bis tudde nga ko mbokkum wànjen na jëpp loolu la yalla dogal digganteem mak sëriñ baara jenn kera ba nga xamé ni Cheikh isa jenn da wolu sëñ Mor bam ñew mu ni ko dëkk wax ca Jóor na nga and ak talibé and ak donga yi kenn duggu ci ab neek su ngeen démé na ngeen dajé ci pénc ma di tudd yàlla ba bët set lépp luñ leen fa jox ko ñaari xaaj benn xaaj ba ñu jox ko sëñ Mor sëñ Njaay tàggaar ba sëriñ Mor Jenn defee loolu ku ñuy wax Baay Mbay Njaay ñaari doomam yépp sëriñ Ibrahima Jenn moom sëriñ Mor Jenn moo doon seen jëwriñ ci kër Cheikh Issa di waajuru sëñ Serif kenn mee toog kero dañu ko bàyyi mbay soo demee ci sëriñ Mor Sey Njaay tàggaar lépp loo bëgg nang ko ko wax di ko am kero ba mu daa fekk sëriñ Mor Sey Njaay tàggaar ca taalub jàng ba mu yor jukkib alxuraan mu ñëw nuyu ko ni ko sëñ Mor Diarra ma yónni lii moo ma ko mu ne ko ndongali waxal loo bay mbay ni ko man day dama takk soxna am naa ak moom juróom-ñaari at sun borom joxunu takk mu ne ko waxal li nga bëgg ñu defal la ko lii la sëñ Mor Diarra jox boo ko sànni woon fee ca ginnaaw njaboot dina barkeel te tey ku dem ci dëkk booba di nga xam ne ñaan googee Cheikh Issa Diène nangu na ko mu jógee ci loolu Cheikh Issa Diène woolu na ko mu ñëw mu bënnuloo ko ab teen bënnuloo ko ab nano ci si Mor ak gi ak teen ba ba ñu xëyee rey ab xëyaat mu rey ab gàtt ñu ni lii sëñ Mor Jenn di def de sëñ Mor Jenn mu sëñ Mor Jenn aka koo man ndax ci barkeb Seex Isaa Jenn rekk lay dox aka koo man man na ko def na ko lool la yàlla defal ba demee ba ca ñeenteel bi fan sëñ Mor Jenn di rey ñaari gàtt dañ doon wax ni mënu ko moom yokk na ko mbirum sëñ Tuubaa demee noonu cere ba nga xamee ni Seex Isaa Jeen teen ba daa bënn mu ñëw di ko seet si ànd ak soxna muslimatu Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waajuru sëriñ Abdou Salaam Jeen booba dëkkuwaay yombul néeg yi nga xam ni ndax góor gaa daal di aalu ni ko sëñ Mor na donga yi ñëw néeg yi nekk sama kër nañu ko yanu sàkket yi nañu ko yanu xeer yi nañu ko yanu ñëw sampal ko fii seexi sa jenn borom jenneeg léegi kere ba ñu defee loolu ñaari néeg seexi sa jenn dal ci benn bi soxna Matu Mbakke dal ci benn bi waaye tey ji de njaboot googa kenn ku nekk dégg nga leen ci yoon wi kenn ku ne xam nga leen ci yoon wi ndax seex Mor ak Cheikh Issa Diène fàggul na leen ci tawféex kon yenn waa Touba Ndiéné Mbacké njabootu Cheikh Issa Diène njabootu Serigne Mouhamadou Lamine Bara waye njabotuk cheikh isa moy njabotuk seigne Mor Diarra lii bi ngeen ko defé ngeen ko def waye nokku bi ngeen ko xamé ba def ko seigne jara tudde bis seigne Mor borom daru mo jara tudde bis musu leen réccu dara waye ñongi ñaan ci cheikh borom daru yal na sun borom fajj seeni aajo lepp lu fi way indi yal na la ko sun borom fajal sant nanu bu baax di tamit ñi nga xamni Cheikh isa jenn de leena defar Serigne Mor jenn àndoon ak ñom li ci xam ci ab tak muy fukki cheikh ak juroom ñent yo xamni Cheikh isa jenn defar na leen toftal leen mbooloo mbooloo topp leen mbooloo gëm leen mbooloo yaakaar leen lépp ci defarug Seex Isaa Seex Isaa yal na nu ko yàlla fayal fukki seex yooyu ak juróom-ñeent yépp kenn ku nekk xam na sëw tur ñu jaxasoog njaboot googa bu baax li may wax sëñ Sërif Wàdd xam na ko bay ngañ wadd xam na ko te ëttub sëti Seex Isaa yi umpatul genn kilifa ci njenne waaye umpatul benn taalibe ci njenne góor ak jigéen mag ak ndaw na ngeen nu ñaanal ci liggéey boobu lanu ci bëgg rek nu def ko ci barkeb sëñ Tuubaa barkeb Seex barkeb suñ maam ya àndoon ak Seex Isaa di liggéeyal Seex Isaa sëñ aada jenn xalifab Seex Mor jenn borom daru xolam sedd na ay rakkam seen xol sedd na ay domam seen xol sedd na waaye ay setam seen xol sedd na li ngeen def def ngeen li ngeen wara def ndax serigne bara Jenn digganteem ak serigne Mor Jenn kera ba nga xamee ni serigne Mor Jenn borom daru Lata muy wati bañuy wax serigne Asan salam. ci ndiarene sëñ soy jaara da ko jox loxo mune ko ndonga li mune sant mu ko jenn mune ko ndax xam nga sëñ Mor jenn daru pam mune ko waw mune ko suñ boroomam xamal ni sëñ Mor jenn wàcc na ab ande guñu ko Touba mom kat ku bana dimbulé la barsax lolou lepp ci barket Seex sëñ Mor jenn borom daru ci barket Seex Isaa rek la doon dox waye kera ba nga xamé ni sëriñ Mor jatt na ci na sëriñ Baara Jenn ko jullee sëriñ Baara Jenn ko taxaw sant ko gërëm ko kon sëriñ Mor Jenn borom daru am na ngërëmul Seex Isaa Jenn ci lu wir am ngërëmul sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Jenn ci lu wir borom Touba jenn Mbar ak liko wër koni fi diw mën la jenn loolu yàlla na gën a yàgg kon njabootug Serigne Mor Diagne ñi ngi sant bu baax te di leen itam bu baax itam bu baax njabootug Serigne Mor Diagne gépp ngi nii seen xol yépp sedd na seen xelit gën naa dal bu baax sunu yaakaar gën naa doole bu baax mag ñi nag wàccoon nañ ak noonu ci ñi ma ko war a wax nan gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam li nu am mooy lan te li nu am nag moo jara ab muy seexi sa jenn borom njenn ak lagan foo man di dem ci àddina bi ak fu mu mën a doon buñ ne diw nga ne jenn ñu ne la jàkk te kun la jàkk naw la loolu nan ci gën a góorgóorlu bu baax te sëriñ Bara jenn nee na woon sëriñ Mor jenn mu ne ko jenn mu ne ko ak taalibee rekk moo am solo lépp lu leen waay mën a jaay ak lu mën a doon nangeen ko bàyyeek moom te téye seenug taalibe jamono ngi ñëw seenug taalibe na ngeen ko def ca bañ ba ñuy wax roog seen waaye tawféex jooju nga xam ni Seex Isaa Jenn defal na ko Serigne Mor Jenn borom daru muy ak taalibe rek njabootuk Serigne Mor Jenn koo ci gis ak kum mën a doon ak taalibe rek lay dund te loolu rek mooy sunu warteef fas yéene ànd ak yéen liggéey bi ci waxtu wu nekk ci saa su nekk di ñaan rek fekkeek tal sant nan bu baax njabootuk sëñ Mor Jenn gépp nag dañoo takku jàng nañ juróom-ñaari kaamili alxuraan jàng juróom-ñaari taysiir ñaanal Seex Isaa Jenn sunu borom yokk ay leeram ñaanal sëriñ ba sun borom yokku ay leeram te doli no taf ci barkeem waye njabotuk cheikh isa Jenn gi ci deset ñaan nañ bu baax sun borom yagal len fi lol te may len wér sunu kilifa yi nek ci sunu kanam yal na ngeen fi yag lol te gëna a wér sant bu baax tay tup tay jéggulu ginnaaw bi ñu sant yalla julli ci te bi alihi salatu wassalam ñu sant ak gërem serigne touba khadim rasul ñi jël suñu nuyoo ak suñu ziar di ko teg ci loxol sëriñ Sidi mu sëriñ Sohaybu mu jaareel ñu ko ci sëriñ bi mu àgg ba ci waa kër sëriñ Touba yëpp ak ñu fi teewoon kàddu yi nga xam ni moom lañuy ñuy yëkkati mu nekk kàddu yoo xam ni kilifa yi baaxoo nañ koo jël dañu ko jottali loo mooy sëriñ bi mu nekk loo xam ni oyoful ci ñun lu diis la ñu lott ci lool waaye murit moom ndigal rek te kàddu yi ndigal la balaa ñuy sori itam dañuy fàttaliku jenn jëmm joo xam ni moo ngi nekkoon fii ak ñun ñu koy wax Baye Abdoulahi Diop ñu ci Baye Laay mu nekkoon ku jege sëriñ bi yàggoon ak moom lool ci ak ndaw ba ci ak mag Euh, ndawam gi yëpp mu def ko ci moom ba wàcc ci daara ji yemu ca mu dëkk ak moom di ko noddal ci jàkkam ji di ko jottalil ay waxam jottali googu mu ko doon jottalil ay waxam nag mën nañoo rafet njortu ni ku yàgg a wax lu baax la ndax ku xam Serigne Souhaïbou xam ni waxam yépp mooy li alquran doon wax yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yéen ñi gëm yàlla ragal leen ko tey wax lu jub waaye di waxit ni wa quulu na di leen wax lu rafet ku xam sëriñ Souhaïbou bu xam ni wax ju jub xocc la daan wax waaye wax ju rafet la daan wax te moom jataay bu mu mës fekk sëriñ bi wax lu sëriñ bi wax moo koy jottali mbooloo mi te yàlla buy fay ak bari leem ak yaatu ma yërmandeem tax na bu dee jëf la ka ko jëf ak ka ko jottali ko jëlaat jëf ji ko ko toppandoo ñëpp lay fay bu dee waxit noonu kon ñoo ngi rafet ni rafet njort ne Baye Ablaye yàgg naa wax lu rafet waaye itam doyoon na sëkk rek ñu ni moo doon nodd ci jàkka ji te nodd nekk loo xam ni mooy waxtu julli wu jot yaay taxaw ci néeg boo xam ne suñu borom rek moo ko moom wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada di woote di wooteel yàlla ndax yàlla bu mënoon a wàcc di wax ak nit ñi kon saa yu julli jotee mooy wax ñëw leen julli ñëw leen julli kon nag ka koy defal kuy jottali kàddu yàlla la kon ku ñu rafet njort ci moom mi ngi noonu ànd ak rafet njort gi yëpp nag teewul ñoo ngi sàkku nit ku nekk ci ñun jàngal ko suratul fatiha ak euh, suratul ixlaas fukk ak benn ak salaatu ana bi gumman ñaanal ko ko ndax ñoom duñu doyal ak ñaan ndax euh, loolu rek lañ ko mënal fi mu ne nii kon nag ginnaaw bu loolu jàllee nag ni ñu ko waxee woon léegi kàddu yu sëriñ bi du lu oyof waaye mën naa oyof toy ci ku ko yàgg dégg ndax wax naa léegi dawul gudd daana gàtt lool waaye daana jub xocc te daana rafet kon nag moom fu mu mën di nekk te mi ngi nii ci suñu wet ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér li am solo rek mooy xam la mu bëggoon ñu ne ca te bokk na ca lam bëggoon lool mooy ay nit yu ànd nekk benn sëriñ bi bokk na ca lam bëggoon lool mooy nit yu ànd nekk benn feeñal na ko ci ak njabootam feeñal ko ci dëkk bi mu yilif sëriñ Soñ bu wax na ko léegi wala sëriñ moodu wax ni dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ne sëriñ Soñ bu la fi yàlla teg waaye njabootu Cheikh saa Diène gi yëpp moo fi nekk loolu nag daf ko wuute ak dëkk yu bari bokk na ci li mën a jàpp ni moo ko waral nag mooy dëkk bi mooy dëkk bi Serigne Issa tege aw sémmiñ sëñ Baara jël ko maanaam dëkk bi Serigne saa mujj a gor sëñ Baara jël semmiñ wa jàll ak moom ba fa dig wayam loolu bokk na ci li tax dëkk bi jaxasoo ci ay euh, nit yu wuute waaye loolu fi mu ne ndimbal la tawfeex la ju rëy a rëy kon nag buñ fi nekkee ak sëriñ bi te xam ni loola moo ne woon ak bëggam te mooy nit ñu booloo nekk benn a ah, bu toogee di wax ak ñun ak bu toogut yépp loola war nañoo xool mépp pexe muñ mën a def mépp pexe muñ mën a jaar ba nit ñi nekk benn ñu def ko ndax même monsieur maire mi ñuy ñaanal te mbokk ci kër gi ak li mu bëgg defal ko dëkk bi te bu amee mu nekk tawfeexam nekk tawfeexa dëkk bi yépp même bu fi amoon te fekk nekk dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne nekkul benn ñeenuñu ko yàlla waaye mën naa nekk loo xam ne day xew ci yeneen dëkk yi mooy ñu gis luñ bokk man koo séddoo ci séddoo rafet waaye mu indi par xuloo ak xeex te loolu itam boo gisee sëriñ bi di woote toujours foofu naan maa ngi sàkku ci yéen ngeen nekk benn ba noppi teg tegal ñu ci ay kàddu yoo xam ni mooy tax ñu nekk benn mooy nit ku nekk ku tane ku nekk ka nga tane ko di dee ko dimbali nangoo liggéey nangoo sonn di jaamu yàlla te ku ne ka nga tane dimbali ko te ku ne itam lam am nga yéene ko ko loolu moom ñëpp miinoon nañ ko ko ci aw làmmiñam ndax bu ñu booloo mooy tax lépp loo xam ne am nañ ko ñu mën koo sàmm lépp loo xam ni amuñu ko tam ñu mën koo wuti ba mu agsi mu sàmm ma sàmm jàppee ni bu ko dem ba indee moom la ko defal dem ba jàpp loolu bu boobaa am lu baax dana yomb waaye bu kenn ku nekk jàppee ci ñun ni bu fi dara lu baax di dugg bu jaarul ci man rek bëgguma ma dugg bu boobaa itam jëriñu day daal di jafe lool moo tax sëriñ bi doon ñu woo ci biir cercle boobu mooy nañ fexe ba nekk benn loolu nag ñoo ngi ñaan suñu borom dimbali ñu ci bu baax a baax a baax a baax ndax xam ne buñ ko defee nekk nañ ci ak bëggam bokk na ci liñ mën a fàttali ci ak bëggam mooy jàkka ji nga xam ni dafa nekk ci suñu penk ndax yaakaar naa ne ku yàgg ñëw ci dëkk bi nag yaa yàgg nga ko fekk ci melokaan yu mu nekk te jàkka du kenn ci ñun koo xam ni yaa ko moom sëriñ bi moomu ko te itam ni ma koy faral di misaale rek ab sëriñ akub taalibe moom ab welo la rek sëriñ bi mooy ponu ba ne ca kanam mooy wane yoon wi waaye nag taalibe bi mooy am pas-pasub nekk ponu bi ne ci ginnaaw ndax jumtukaay yu doxal welo bi yépp ci pneu boobu la nekk waaye nag welo bi fa muy jaar ak fa muy jëm moom pneu bi ci kanam rek moo koy wane kon nag sëriñ bi bu tegee aw xeer tabax mu toll ba mu toll fii dama jàpp ni daa waroon a génn dem fenn rek ñëw fekk jàkk ji sotti soteet loolu itam lay lay mën a tax mu am mooy xaj na waxtaan ndax man mën na amit am na ku ci bëgg a def alalam waaye du xam fan lay jaar ba def ko te bu waxtaan amut wala diisoo amut loola yi lépp dara du ci mën a sotti tey lii ñu def ni am na solo lool ci dëkk bi ndax dina indi booloo gi ndax tey képp ku dëkkoon ci dëkk bi bu jàng yi ñëwee da ngay ngay ñëwaat doo ñëw sax yow dong waaye da nga am sa xarit boo xam ne yéen ne bokk fu ngeen liggéeyee sa dëkkandoo la nga ne ko nañ ànd dem Touba Ndiémé ngeen ànd ñëw kon jàng yi day dajalewaat dëkk bi yëpp dajale xale yëpp dajale mag ñëpp dajale góor ñëpp dajale jigéen ñëpp loolu kon mbir mu am solo ci ak booloo waaye tam gis-gis bi war naa weesu at mu jot rek ñu booloo dajaloo togg ay ginaar wala ay xar ah, defar ay jus wut ay fruits paaleen yi xaw ceerey seen bopp ñu daal di tasaarawaat ba déwén loola day daal di xaw kii lool day baaxet bu fekkente ni dees na mën a jaar ci loolu sukkandiku ci ngir développement dëkk bi gis ni war nañ fee mën def jàkk gis ne war nañu fi mën a def lii ak lii ak lii gis ne war nañoo mën a àggale jàkk wala leneen ak leneen dëkk bi jaar ci jàng yi tiire ci benn bitse moo xam dañ koy laaj moo xam dañ ci comp di ci développé dëkk bi loolu tamit day baax ci mbooloo ñu bañ a yam rek ci taxawal ay bis kon nag nañu xam ni sëriñ bi moom jottiral ko ay kàddu jafe na lool waaye nag la ci ëpp solo rek mooy xam li mu bëggoon te boo gisee nunguta nungu nungu ta gis sikus kenn moy day bañ ñu bedd kenn ndax nit ku baax mom sa yo toge ci wetam sikkel ko kenn ba kooka ba mu jàpp rek ko japp sikam rek moy japp nga ne bedd nga ko musta nungu sikus kenn loolu lepp it bëgg ñepp an nek ben dong motax mu def kon nak dafa melni ne rek ñaari mbir luy wane ak bëggam ta moy nit ñi and nek ben wara ñaanal mbolo ñu yewi len ba déwén ak jàmm insha allahu taala di leen xamal ni ñi rek lañ ko daan defee ndaka jekk bu jàngkat bi jànge ba noppi sëriñ bi day ñaanal mbooloo mi ñuy ñaanal ñëpp toog te déglu kàddu yi ndax kat Cheikh Mouhamadoul radiyallahu anhu dafa waxoon ni man de ñëwuma ku tàmbali waaye ku yegg li laa ñëw kon mbir boo ko tàmbalee ci rafetal ko bokk na ci li koy matal mooy nga eggale ko kon nañu teewlu kàddu yi nu xamal leen ni bis bi bis bu am solo la ci nun nun waa Touba Ndiéné bis la bu nu fonk képp ku nu ko fonkle nu jàpp la waaye képp ku ko xeebal ah fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin kon ñoo ngi xam le ni bis bi lépp loo xam ni waaye defal nanu ko sant nan ko ci kanamu sëriñ bi tàmbalee ko ci alxuraan ji nga xam ni moom lañu doon jàng ci daare ya nekk Touba sëriñ Maxtaar Fall jang ci lim am solo daanaka lopp ci kamil yi moko jang euh ñeneen ñi barkelu ci waye lepp rek ay ngeenel la defena toll na ci 148 kamil di téméri kamil ak ñeen fukk ak juroom ñatt defena lolu ku ne xam na ni day solos bis bi te kiñ koy defal muy cheikh mohamadou lamine jenn serigne baari jenn jambar jenn defe naa luñ ko defal ci lu baax rek yeyoo na ko ndax delloo ko njukkal la kon nag loolu lañ waxoon nañ ko leeral nit ñi ñu xame ko noonu mbokki lu ji mbokki teelu bi teew yëpp kenn ku nekk ñu ngi lay ci sa ak ci sa sant di leen jàmm diko ko nak ci sunu yaakaar te ak sëriñ Mouhamadou muntaha serigne abdul rif jenn xalifa mam Cheikh isa Issa Diène sëriñ Souhaïbou Diène xalifatu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jenn di doom di wax fi serigne sëriñ bu ma ngi deg ci ben waxam ñu nañu xam ne adduna bii dara dafay nekkut ndax bi fi ñëw dañ fay fekkoon ay nit ñoo di dem bàyyi ñu fi ne dir bi fekk am ñu fekkat dem bàyyi ñu fi kon ñoom ñoo rek a ñu daan toogoon ak ñoom di waxandoo ak ñoom tey yëpp dem nañ bàyyi ñu fi kon nag li ñu dese ñun ñu fi ne nii sama kaas gi fi ne ñooy ñooy sëriñ su mag si waaye yéen ñi fi toog nii yéenay magi toolu bi lii sunu sag nag mooy la Cheikh Issa bëggoon ñu taxaw suba guddi ñu ko woon bëccëg sëriñ baara nag taxawaayam ci Cheikh Issa xam na bari na lu ñu xam ci Cheikh Issa ci suñ baar lañ ko xam ndax daanaka boo xoolee jotaay bi ñu fi fekkee jotaay bi Cheikh Issa bëriwul dara loolu nag xam suñu baar lañ ko xamee suñu baar nag li mu bëggoon muy ak jub ak tóolu bi ak jaamu yàlla bañ ko yemale dara suñu isaa nag dafa am lu mu jaayante woon ak suñu Tuubaa ca njëriñ mu ne ko isaa tey boo xëy sa ndigal rek lay déglu du sa jóg suba du ci du ngoor du jóg bëccëg ku ci jàdd yu yoon jaarale ko yu yoon ñu jaar yu yoon lu nag am na fi am na tóolu bi yoo xamante ñu ngi suñu baara jonn jox ko ay yërëm suñu baara jox ko seen plaat mbakke booba la ko warloo it daa joddoon yoon waaye teewul da caa jóge dafaat laa xaw loolu la doon tuub fu mujj yàlla xam ne dafa mujj saxe kon loolu yàlla ci yàlla musul am na koo xëy dafa daan suppi xaalis suñ bi tere moom tamit mu tuub ginnaaw yàlla xam ne daa mujj saxe kon loolu yàlla yàlla musul ci loolu kon nag ñun sëriñ su ndaw suñ xëy ñoo seen kanam li ñu war mooy nekk ci ak tóor bi sax ci di jaamu yàlla suba di jaamu yàlla ngoon di jaamu yàlla ak bëj-bëtik lépp loo xëy na Cheikh Issa Gouné la yàlla bu ñu ca kenn fekk te liggéey yi tamit ngeen góorgóorlu bu baax takkaar la xasaay lu mag ñi nekkee woon loolu rek moo fi nekk ba tey ngeen sax ca loolee lépp lu ngeen def dañu ci am ngërëmul sëriñ bi am ci seen ngërëmul seen ngërëmul waajur sër te nit ñëpp nag mënoo toog ñu lay déglu nga di leen jëy mbaa nga di wax lu leen neex déedéet moom koy li ñu mel mooy soññi leen ci lu baax li ngeen jëf sant ci lu baax li ngeen jëf sax ci nag ba faw loolu daal moo leen war moo ñu war ñun loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax ñu góorgóorluwaat kër li ñu koy bëgg bu ab ab rafetaay rek kër du dara ci magasin yi dong lañ ko jënde oto lu mu rafet rafet ci parking yi dong lañ ko jënde du dara xam nga lu dara mooy la Cheikh Issa waxoon rek Cheikh Issa ne lépp lu waaye di jawelu bi ak toolu bi moo gën dem ci saay-saay bu la ko ëppale loolu ngeen ñu bàyyi ko xel bu baax jotaay yii woote it dafa dafa war a gën a yaatu ndax mooy li gën li suñ tubaa bëggoon ndax suñ tubaa dafa yaa halal bahar yaa habul ujoor bëri bëri saqaay moo waral màggal yu bari ak woote yu bari yii buñ ko deful tam na ngay defi leneen léeg-léeg nga dégg sax jàngkat bu naan lañ ko fay dafa seer doo mbërum lam moom ñaata lañ ko fay ñaari minute mu mu dem yoonam ca ci yàlla nañ fa jàpp ko julliwul kon tey lii jotaay bi lu baax la nañu àndandoo jubbanti ko waat tegaat mbir ci yoon nga xamante ni la fa mag ñi bàyyee woon loolu daal war ñooy suñu sag tey ñooy suñu yàlla nag yàlla sëñ jàppale ci loolee mooy ñu njaboot bu jub soxna yu jub tool bi jub focc àll nekk benn képp koo xëy ñu ngi def rek ak bàkkaar boo fi indaale daal dogu naa ci Cheikh Modou Bara Cheikh Issa yàlla teggal ko moom sëñ bi waaye nga góorgóorlu war nag bañ a defati beneen bàkkaar ñu jox nag sëñ Bassirou mu sëñ Bara Dieng Moussa Niane jërë ngeen jëf المصطفى وربي الخير صار ما كان واضح سماء الأسير وخفى سماء زروان في ذهب بالبسر وراجل سلام الذي ينور لماء السلام ذو الورقان وكل وما لسانا من متدلو يغيني إلهي وهو كل يدير يا رسول الله يدي ولساني عفاني وجسدي ما إلهي أنا سلمان الغيب جل درا سام بي من النفي والبار سل جلب والنبي يمين نبي فرار خبيا لذي درا عليه السلام الله سلفي زين البغي يجامله كل خديم الرب يسد صار قرب وغرق بداني وسيرك آثام زمن ولخالص من خير المهم نزل بتثيم علي بعليه وسبي باقي في قصدتين وسجل المختار بالآل كله فلسفي مخلوق خراي خراي يخل لسان لي كل غنيمة حرك عدلك داري بالله يا يخني للجناد باخل يمري خداه وقت مختاري كل يتيم ملكه بربي مرجع الآل موت وليمه بمد المسيان ساعة حسن فرق الغم ربي واجاتي ربي تواجهات بأمر والسكر والرحم كل كان بيدوي مرادي كوني عبد ربي خديما وعاتبه بسور العالمين وسياك يا كلي لدى الكل خجلت ولكن لها جل عن الزير والنذر الرحمات خير الخلق الرحمات الأكرم إلى الله رب الأرزاق صلاته يتسمعين مصاب وخدم اليمين لو سعادة لو براءة يوما أرست ولد الصفاء هو النبي ورسول والخليل وهو الأبي والإمام والدليل بلاني بدي من خير الجمال والآخرة خير كما للمنتقى محمدي خير الورى مختار عند السمدي بسم الله الرحمن الرحيم خد كربنا بني آدم وأملنا في البار والبار ورزقنا من الطيبات وفرنا على كثيرا من أنقلنا تفضيلا وجدت وكيل من تقديم بانا في سهر مول إدمال في البحر ربانا للعي سورة في سوي ربي أونا على ابتداء إلى سئلة غربانا قال أمر القلب لا سريك الله في الملك والأمر أنا إلا أنا دعوت بر لمن كرمنا في البار والبار لملا مولانا كون بكل يفيس اليوم توسية حتى أقيم الدين لا يركانا ربيتني فلت أبلي آم يا سمدي إدمان خير للأعد وإسكانا ربيتني بديت آمن وتربيتي أن يوم تربيتي أن مسيانا مكنتني بدل ليخ سقتني للان مواسيا بدما خدرت ريانا نجيتك اليوم يا من أمسك الرماني وزرت لي يوم إيقانا وبرآنا ذر قلوب نصار يا خدير لا نرور اليمن قد أزهانا بكونك الواحد الخار منفردا لخر إدا نراب رايد مانا نبختني أمسيتا بأن أرى عجبا أنت البديع الذي ما سال رمانا يا زدلي أفسر لي ما توسيعة بأولا ما تلسانا آويتني بدما لا غرق فادي حسن فسرمدا ليرى جينا وإسلاما أسلمت وجهي إليك اليوم من لمن خدوت له كعبا وإسكانا دام لا دخلا أجي لخدمة من تفسيرون رالا دا يسانا محمد خير خلق الآي سيدنا سلام عليه إلى سي أدوتيانا ما من الخير قال قل لا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا صلى عليه إلى سيقدوت بيانا وجد صلاة بدل من له أبدا ولبيانا وأتني وزيانا أملتني ربي بتكريم دونانا في البار والبرز لنا مال يلأميا وحب فوق رجل والترلي داي ومسلانا ويبن لال تايب وخني ما رأس شر دار ويلانا نجيت بار لئيما منيا ولا حمل فاعل أرجو نزول أنا أسكو سكور وسيلنا وغدا يا واسع مغني ما صلى إليك قلبي وجسماني كساك يا آدي المسر ربا وأنا يا إيمان في أجلين أتت باسر من قد كان أصنانا بكلنك الخير جبار توناه أن لا أناس يجابر سلطانا ولي سلاتين يا قلب يبدين والتمني وفني مكر وسيطانا رجوت أنك تهمني وتنصرني نرا عزيزا من منكر الوالى وغيتني بغرادا ومن ما فلتفني سرمدا يقدا وعدوانا يغفر ذنوبي وأبدي يوم مطلبتي بكون ورم عبي لسرمدا سانا لفراق لسي لم تلو كل خان والتمانيا خفر مسانا برمتي مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى ما مصطفى قادم بالنصر والنصر مصطفى أجي بخلمي تقبل مصطفى قطعا والتم حسيني وكملني مصطفى ربي استجيب من ما نويت لدى مصطفى مصطفى بك نافك بنيانا rabbi staji wal kami ma nawaitu lada tuba lati bikatu nafika bunyana wajatu iya yawma sabti murtaliyan inalasi lasi sarmadan den khalakun kana rabbun karimun afisun wasiun samadi wa abtaqi min utaisiran wa iskana ilmi al yawma sayyidan qad ibashirni فطن وفيلا ورلي دار سجانا خذر يا آخر يا جبار يا آخر اللي كل الذي يغزى أنوال مجانا نعجيتك اليوم يا برني الله يله شكرا يقاجل يا قوت ومرجانا ألا العليم يا أمل أنت الأليم الأليم البرمانا أدلي بياقتهم لأسمار يمن أنسى يكابر أهل الحق يسمعنا من الكمس الذي أتيت سبحان أتى به قرد يتمانا من يلمي ومربتي فلتفني لا إله إلا الله نمبرون لغانا يتكتك la لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله برهان الله alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki julli bi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar baax jiite ci nuyoo bi ak siyaar bi suñu sëriñ bi toog di sëriñ naar di ko jox nuyoo bi mu jaarale ci sang bi ci biir sëriñ Souhaïbou di ko ñaanu suñu borom yàggal ko fi te dolli ko ak yéen baax a baax di siyaare baax suñu waajur yi nga xam ni dañ leen a fekk fii ci pénc mi te nu ànd ak suñuy waajur ñu waroon kenn ku ne ñu ñëw ci yow ñu ngi la siyaare la waaye dañoo guddee ñëw ba loolu yàlla dogalu ko kon ñoo ngi koy jéggul baax ci ñëpp di ko tuub di leen siyaare di leen jox seen wàcc waay ba mat fekk di koy siyaare suñu mag yi baax yi ci nekk ak mboolem waa dëkk bi yëpp di siyaare baax sëriñ soñ bu njaay mom ñi xamni xam ne ñu jëwriñu bi di siyaare mbolé membre yi mu andal goor ñi ak jigéen ñepp ñu leen di xaar bax di leen defal bu baax baax tam ndax liggéey bi day lu nu bok war ko andal yeen te yeen def lepp ba data ñoo kon lool ñu leen ci ciy defal bu baax serigne mustapha ba ñoo sori ci wax ji serigne Modou jang momo yoni neena na ngi lay sante cant boo xam ni am na tàmbali waaye te yëmul fenn ndax car bi ko waa daayira bi joxee ndigal mu war a ñëw ci yow man mii la war a na àndal nga ni jërum ngeen di ñëw li ñuy wax mën nañ ko wax ci téléphone ndax dëkk boobee sama dëkk la lépp lu jëm ci njenne buñ ma ci wooyee sama bopp laa fi dikka dikkul ma leen fi kon li ñuy wax rek mën nañ ko wax ci biir téléphone bii waaye ñimewuma ngeen di déplacé ñëw dina fekk si te noonu nga ko defee li ñuy def lépp ci waxtaan lañ ko waxtaanee ci téléphone lañ ko waxtaanee kon sëñ Mourou nee ñu ngi lay sant ci woyofal googu ak jàppale googu ak bëgg gi nga bëgg bis bi wane nga ko tam nag ndax noonu nga bu soobee yàlla bu ma xëyee fi laay yendu si te bu soobee yàlla sama képp laay kattan dinaa ko ci def kon loolu wane nga ko ñun ñëpp xam nañ ko ñoo ngi lay ñaanal ci barke Serigne Touba. bekk xasida yi fi nga bëgg àgg yàlla la fa yàlla àggale bekk sëñ Baara Jenn borom guddi gi bu loolu jàllee maa ngi nuyu suñu bokki taalibe yi ngeen àndal bàyyi ko Touba di ci jiital sëriñ Mour Dieng moom nga xëy mooy jëwriñ ji ak sëriñ Soy bu Dieng ak sëriñ Mbacke Dieng mais ak mboolem membre yi ndax buñ ko limee dafay gudd ak sëriñ Fall bi nga xam ni mooy suñu secrétaire général mom nak dañ koy beral tiant tiant go xamni amna am na tàmbali mu fenn sunu dom la sunu rak la way japp na ci daayira japp boo xamni fa wuñu biral ku ci karam serigne bi bu ñuy dem danañu jël ci yobbu bu ñu jógee daayira dañuy delloo si suñu kër bu amé bagage ci otoom la tek da nañu jël si suñu kër danañu delloo suñu kër te loolu serigne ba rek moo ko jaral ko ñaanal bax suñu borom guddal ak te dool ay ñoom baaxa baax sëriñ bi ñoo ngi lay ñaan nga soññal ñu ñi nopp topp suñu ginnaaw ndax daare Touba tur bi mu àgg réy na waaye membre yi néew na membre yi néew na li tax ma ko fii nag fii occasion la bu ma mën a jàllalee ndax woote yombul te boo wootee du la wuusi turu daare bi mu àgg membre daare àggu te ñi fi jóge ku fi sa waajur gënewul jamono wu góor sa waajur jigéen fi la gën a jamono bu jooyaar amul samaam fi la liggéey ba am ngërëm sëriñ bi kon bu la woor ci weer wu ne junni ci góor jigéen ñi woo ko ci ñeenti téeméer bu la dëkk bi jëralul loolu sa bokk yi nga fi fekk si jërul loolu baas bii ñu tiim jëruloo ko sëñ Moussa Seck mi lii fi jàng ci xasida war naa jëral joxe junni waaye wax dëgg woote bi yaatu na waaye wuusi gi moom néew na lool lool lool ndax fii ci Touba Ndiéné ñi fi ne ñi fi bàyyi koo dem Touba nga xam daa nuru toxu waaye yaatal ab dëkk la ñi fi bàyyi koo ñoo ëpp ñi fi des kon lu waa Touba Ndiéné mën a taxawal rek waa Touba Mbacké gi war nañ ko mën a taxawal waaye nag waa Touba Ndiéné gii dañoo ëpp pas-pas ci bis bi dañu ci ëpp yéene ndax ñooy bay ñooy joxe seen addiya ñooy indi bagage yi ñooy dajale lépp ñu jóge Touba ñëw ñu bernee la guddi ak bëccëg nga paas ñaar téeméer ñëw ñu berne la gudde ba bëccëg nga delu ni jàng yi neex na ca jàng yi mënoo cee def junni wax deug buñ waxante le la wér loolu pass pas ba dess na ma nga jéglu nak ndax fi rek ak mëna wax a kon ni nga xamni ne ñoo bàyyi ko di suñu rak di suñu dom di suñu soxna way way dimbali leen ngir yalla buñ le boy booy daal si ngeen wuusi li ñu di fi dong lañ ko indi suñu dokku mam wala suñu dokku bay wala suñu pencum serigne te ñett yooyu benn bu ci nekk jar na nga joxe junni weer wu ne ak woyofal am na ci loolu nag hmm? at mi yëpp at mi yëpp benn junni wax dëgg yàlla loola ñëpp mën na ko xanaa ñàkk def kay ba mu ñàkk laa ñor waaye wax dëgg kenn ku ne sa li nga def sa portable ëpp na weer par junni nun ñu laaj la at mi junni te mun ñoo fexe ba daje am na leeral yoo xam ne duñ ko mën ci rajo bi waaye wallaahi lasim buñ ko leeral ngeen xam ni fi turu daayira bi àgg membre daayira àggu fi wallaahi lasim suñ baara seere na ko léegi nag bu dee da ngay ñëw fii indi ñaari kaar wala ñeenti kaar sa addiya néew lool day mel ni ki jiitu daa duxul ma bëgg su fekkee dina am keneen ku mën a dox ñu jiital ko mu dox ngir yàlla nit ñi ñëw woote métti na kon ñoo ngi sant ñëpp di siyaare ñëpp ñoo ngi jégalu ci kàddu bi xam naa kàddu yi soññee rek lañ ci bëgg ak bëgg nit ñi dégg xam ni sëñ Baara rek ñu ci ñor ndax suñu doom rek lañ àndal kon bu nee sëriñ bee ñor di woote di woo say doom wala see rak loolu rek moon ci dimbali ngir jimi sëñ Baara kon ñoo ngi jégalu baax. ñoo ngi leen di kenn ku ne ci turam ak santam nuyoo bi nag ñoo ngi ci sering soin bu jen di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak gu yaram di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo eh, doomam ji fi nekk muy sëriñ nari jenn ndax ñoo koy sant bu baax moom ndax it mu ñu defal am solo buñ jàngaloo ba ci su bëgg mu ñëw toog waxtaan ak mbooloo bi ñaanal leen loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ci gërëm bu loolu jàddee nag kàddu yi du gudd kàddu yi cant la ak eh, gën ñaaxaat bi daayira bi ñu am ay cadeau yu sant yu leen di jox mooy dafa nekk loo xamante ni si ay at ñi ngi koy def lu ne jaar na ci nag ci ay yëngu-yëngu yu bari waaye mu nekk ay ndaw yoo xam te bëgg sëñ Bara jeen rek moo leen tax a jóg li koy wane mooy addiyee ji leen di laaj ndax addiyee ji kat bu ne saa bu ma demee ba ci nga xam ne moom moo koy dajale li may wax ni moom ñoo ñoo indi seen addiyee moo may wane ni ma bëgg sëñ Bara am na ndax ñu bari dañuy wax ni bëgg sëñ Bara bëgg sëñ Bara mais boo xoolee ci kay yi ñu bind ci turu sëñ baar yi doo leen ci gis kon ñii ndaw moom bokkuñu fii kon su ko defee waa daayira bi ñu ngi leen xam ne ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaax bu baax ci liggéey bi nga xam ne commencé nañ ko ñu xam ne nekkul liggéey boo xam ne si dañ koy def rek cant bu bis bu jàllee ñu xam ne bis bi jàll na waaye dañoo jàpp ni li war a jëmale Touba Ndiéné ci kanam ñun dañ cee bokk te ci daayira bi ci lañ ko war a jaarale yaakaar naa ne nag ñoo ngi ci kon li ñu sàkku rek kilifa yi ñeek suñu ginnaaw ñoom it ñu ñaanal ñu gën ñoo taxawu te xam ne ñun ko li ñuy def lenn suñu njëriñul bokk bis bu ci nekkee rek yàlla buñ ko fekkee lépp luñ ciy def rek ngir njëriñul Touba Ndiéné moo tax ñu di ko def ndax loolu lañ fekkoon suñu kilifa di ko def ñu ñuy taxawaat di ko def kon sëriñ bi ñoo ngi sàkk bu baax nga ñaanal gone yi ñaanal ndaw ñëpp na waaye rawatina gone yi Touba Ndiéné yi ndax ñii kat jàpp naa ne liñ bëgg suñ ko amee dëkk bi dina bokk ci dëkk yi ñu tudd ndax dëkk bu sëtu bu doomi sëriñ Bara Ndiéné nekk ndaw yu bëgg Serigne Bara Diène nekk fa man jàpp naan dara wëratu fa manqué am nañ ay pas yu ñu teg kon nag euh, Serigne dañ lay gën a sàkku baax nga ñaanal ci liggéey bi nag xaw naa xat euh, dañuy daal di joxaat ci wàllu sant yi Serigne Modou Dieng ci li nga xam taxawal nañu ko ci Moustapha Seck ndax ñun kat ay ndaw kese lañ am na ci yu bëri buñ gisee ñu koy dox buñ jàpp ne ñun moo koy def waaye nañu xam dañoo am mag ñoo xam ne ñoo ngi waxtaan ak ñoom te li ñuy wax rek gone bu dee waxtaan ak ay mag bis bu mag waaxoo wut ci ca kaw bul la dara jaaxal ndax yaa ngi waxtaan ak ay mag kon nañu xam ne daayira bi lépp lu mën di xew du caage ni sooy njaay moo koy doxal wala xalaatub góor a gay wala déet ay kilifa la ñuy waxtaanal ñu ñuy jox ndigal ñu di ko def yàlla dafa dogal nag ni ñu nekk suñ kanam ñun ñu nekk ci kanam di wax ak di dem ak a dikk lépp loo xam ne luy mel lépp xaalis la lu mën doon man de maa ngi nii nekk président bi waaye xaalis amul benn guy dugg ci man te jaarul ci ñi war a jaar pare door ak ci man amul benn buy génnaat di jaar te jaarul fi mu war a jaar doo ci doo doo doo door a génn ndax euh, nit ñi boo yoree seen xaalis bis boo ko dugalee ci sa poche commencé nañoo jiixi jaaxa kon li am solo rek bis boo koy génnee nga leeral ko yàlla dimbali nañu nag bañ commencé ba léegi côté boobu ci lañ ko gën a bàyyi xel ndax daayira bi dañoo dem ba xam lim bañ mooy seen xaalis lañ bëggul muy dugg ci poche ñu ci am lu ñu dut yàlla dogal na nag bañ teelee xam loolu lépp loo xam ne wut na ci poche ci xaalisu daayira bi muy man muy góor muy ko man di doon danañ ko génne leeral ko képp koo xam ne am nga xalaat ni lii buñ ko defee luy defar daayira bi dañuy ñëw wax la yëkkati xaalis jox la ni la lii demal taxawal ko demal defe ko bu newee ñëpp xool ni lii kat kii ko def wala ñun benn yoon it ni ñun ñooy njiitul daayira bi mais dañoo bëgg képp ku nekk ci dëkk bi nga ñëw accès ci daayira bi di ci joxe sa xalaat di ci wax parce que tamit liggéey bi bu dee dëgg rek la yàlla bëgg metti na metti na bu fa metti yam barki seexul xadim metti na trop ci yan bi diis na lool bu ci sëriñ bi déwutug ñaan nag boo mel ñun wax dëgg yàlla am danañ ciy seet ay pexe ndax it nag neexul ba neexul mais sëriñ bi liggéey bi metti na trop ñu ngi ciy jànkonteel coono yu métti te nag ay gone lañ loolu moom dañ la ci sàkk nga ñaan ci bu baax bu loolu jàllee dañuy sant waa daayira Touba bi Sidi Fall li nga wax ci waa daayira Touba bi mbooloo mi mi àndal bi mu ñëw ak addee ji ñun addee ji séentuguñ ko ci yéen lépp lu ngeen ñu jox rek bari na ci ñun ñun dañoo jàpp ne yéen bu len neexon ngeen tok Touba ci def ci ak Serigne bari Diène waye bu nu wote ci ak Serigne bari Diène ngeen dajale seen i addiye dagg seen pass wacc seen keur xot seen hotel ñewat ñun loolu mo reet ñun addiye ji ngeen ñi jox kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waye li nga waxe nak dafa am solo bo nekk ci dekk say morom yépp di dajale di dem yow nga bëgg di dem kon da fay baax ñomit bu ñu dajale dem nga yëkkat ci addiye ñu dajale ja doora and ak ñom dem ndax japp nañ ne doxit kat non la wara a demee kon su ko defee daay waa ñu xam ni soññee boobu si difaat di leen def soññu ko ngir yamale ko waa Touba waaye daf koy soññi ngir mu agsi ci dàkk bi nga xam ngeen bàyyi bi nag beneen bi mooy li ñu bëggoon a jàll ci sëriñ bi mooy am ci dëkk bi dañ koy wax ne comme yàlla na ci wàllu vidéo la du ñàkk ñëpp ñu ngi toog ci jotaay bi dëkk bi dafa toll foo xamante ni li mu gën a am jafe-jafe mooy ndox ndax toll na ci benn diggante boo xam ne ñun ñu nekk ci biir yi sax xawoon nañ cee werante ndax bu nekkee fii ci dëkk bi nekk ci waañ wi ñu dem ba ndox moo xam dañ koo commencé di sóore añ bi sax di ko manqué metti na yàlla dogal na nag ci suñuy waxtaan ak suñu biir fexe nañ ba lijjanti ko kon sëriñ bi noo mën a def ba mu ndox mën a agsi ci dëkk bi ndax kat ku mag ku tedd gi noonu la defoon muy sëriñ Soyob jën mi nekk ci biir jàpp nañu nag ci yoon ci gën a jaar ba léegi kon ndox mi gënee Tuubaa ñenn sëriñ bi ñoo ngi jëlaat kàddu gi di la wax ni loo ci mën a dox ak loo ci mën a wax donte ko yaa ngi koy def waaye ñu ngi koy gën a fàttali bu baax xamal ne bokk na ci suñu yitte beneen ba mooy courant bi nga xam ne moo war a jógee eh, fii dem wàdde ak courant bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ku ne xam ne lamp yi mu ngi tàkk mais niñ ko war a des na parce que buñ sañoon ñoom poteaux yoo xam ay poteaux yi eh, ciment lay doon te ñu ñu ko ba nga xam ne fépp fu war am courant am na ko ndax lamp yi kat mi ngi tàkk mais daanaka na ma yàlla baal nañ ko bëgg amuñ ko monsieur le maire nag biñ génnee wax naa ko ci biti xamal naa ko ni ko nag kilifa gi daf ñoo tënk ni ñu bu ngeen leen waxee seen kàddu pare ñu bàyyi leen ngeen dem mais na ngeen xam ne dëkk bi ngeen génne fii ci bi di gis ngeen ni mu leen demee loolu bokk na ci kàddu yi nga xam ne dëkk bi tamit ñu cee soññal ñi nga xam ne ñooy autorités yi ndax it ñun dañoo nekk ay ndaw te yàlla daf ñoo defal ñu am côté bu ñu xam ci na buñ ci waxee mën nañoo jàpp ni lii la dañuy far wala dara déedéet mooy tax du ñu bëgg fu ñu yemal fii rek ñu maase yam foofu loolu jàll tamit ñoo xam ne doon nañu jàppale ci liggéey bi muy euh, suñu papa Baye Omar Fall ndax kat yàlla dafa dogal daayira bi ay jamono ba méttee moom moo futti koon takk ndigam daan jël alalam ànd ko ak magi dëkk yi nga xam ne ñoom la fi nekkal am ci taxawaay boo xam ni ñëpp xam nañ ko. loolu nag ay ndaw lañ waaye fàttewuñ ko xam nañ ko ba tax na fépp fu daayira bi toll wala balaa daayira bay def benn pas dinañ jóge fii dem ba ci Serigne Naar jenn waxtaan ci ak moom dem ba ci Baye Ibrahima Niang chef du village waxtaan ci ak moom. dem ba ci Serigne Ngagne Wade waxtaan ci ak moom ñëw ba ci Baye Cheikh Gueye waxtaan ci ak moom ñëw ba ci El Hadj Omar Fall waxtaan ci ak moom. loolu mooy li nga xam mooy daayira bi noonu lay départ bu ci xasee jóge nag li ci des muy mu lu neex muy lu métti ci ñun lay commencé waaye dañuy sàkku yéen mag ñi ak yéen kilifa yi képp koo xam ne am nga xalaat wala lépp luy defar daayira bi ñoo ngi lay sàkku xalaat boobu ñu di ko jël dugal ko ci biir daayira bi ndax ñun kat ay gone lañ waaye képp koo xam ñun ñu dégg la loolu moom lu ne mën nañu ko seddal waaye képp koo xam ñun dañ dégg suñu kàddu kon ni ngi sant euh, ki nga xam ne moom mooy Dame Fall moom it ndax wax dëgg yàlla am am na yombalal gum ñu defal ci otoom ndax euh, booy liggéey da ngay soxla ay jumtuwaay yoo xam da nga koy da koy am ndax dangay ngay génn di dem ak a ñëw te loolu jamono sax mën na ko mooy saret lañ ko daan def waaye yàlla yàlla bu dogalee oto nekk fii oto yooyu kon moom lañ koy mën a defe kon Serigne Dame Fall ñoo ngi koy sant loolu ci loolu bu baax euh, mu jox rakkam Youssou Fall mu toppatoo loolu lépp kon moom it ñu ko ci sant di sant añ moom lañu war na jiital sax muy Serigne Ngagne Wade ndax bi biñ xëyee war a dem Touba ku ne xam na ne jamono ji fi mu toll nii fi mu toll ñëpp mënuñoo dem otoom lañ yónnee jaare ko ci Moussa Wade ndax fenn fu ne tamit bu buñ fay dem ci daayira bi dañuy xool ki bokk ci daayira bi ñu jaare ci moom wax ci ak moom duñ jël mukk rek jéggi nit ci biir daayira bi dem demal suñu bopp déedéet dañuy xool ku bokk ci daayira bi ñu jaare ci moom ñu jaare ci Moussa Wade waxtaan ci ak moom bu dem waxtaan ci seen gan ñu yàbbal ko lool ñu jox ñu oto mu dem ak ñëw sëriñ bi kon ñoo koy sant ci loolu di ko ci gërëm sëñ Serif sax dafa génn léegi ndax dafa wax am taalibeem bu seen taalibe bu wàññiku xam naa cere dem mooy kon bu fi nekkoon sax du ñàkk ci kàddu mu yëkkati ko sëriñ Ngañ Wàdd kon ñoo ngi koy sant ci loolu bu baax di sant tamit Ngañ Jéey ndax moom it jël na otoom ànd ak man bi ñi nga xam ni fépp kilifa ñëw ci biir dëkk bi ñu ngi koy tourné kon sëriñ Ngañ ñoo ngi lay sant ci loolu bu baax yàgg sëriñ Mbàkke Jeng ak sëriñ Moussa Wàdd ci liggéey boobu nga xam ne doon ngeen ñu ko defal di sant bu baax nag sëriñ Modou Dieng Serigne Modou Dieng ñu ngi koy sant bu baax ndax mbir dafa jafe mooy bu ngeen bokkee di waxtaan faaw am ko lay wàññi ne lii ak lii lii boo ko defee lii ak lii lay yàq mën na laa bañ a yàqal yow dara waaye lii ak lii lay yàq kon sëriñ moodu conseil technique boobu nga xam ne yaa ngi koy doxee ñoo ngi la ci sant bu baax di la gërëm di sant bépp commission bu bokk ci biir daayira bi bépp commission boo xam ne tegoon nañ ko rek nekk ci bi ñu nekk ñi nga xam ne ñoo yore commission finance bi ñi nga xamante ne si maanaam bu lee matériel même ñoo koy luwee ji bàyyiwuñ kenn ñi yore kafe ga en tout cas li ñu mën a xam moom mooy képp kuñ fàtte nañu xam ni xat-xat la rek waaye bàyyiwuñ kenn Serigne Bara Gaye moom it ñoo lay sant ndax it yow yaa yor point bi gën a jafe te foofu sax da ci am lu ci a leeral mooy nit kuy laajub xaalis at mu jot nga laajub xaalis te boo ñëwee li nga laaj di gën kon xam nga ni nit ñi am nañ cee confiance waaye yow it wane nga ni man bi ngeen am ci man xaalis bi nga may jox moo ngi ko jaarle fa nga koy war a jaarle ndax bu fekkan bañ na ko dénkee ba léegi am na ci ay rëq-rëq yu ci am jàpp na nit ñi bu leen laajee laaj bi dina xaw a waaye gis nañ laaj ba ngay laaj kat waa daayira wax dëgg yàlla gis nañ seen bokk bu baax kon bu ko defee dañuy daal di wàcc suñu kàddu bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu ci kàddug sëriñ bi di jottali ak cant ak ñaan ci mbooloo mi fi teew képp koo xam ni teew nga fii ak foo mën a jóge rek sëriñ bi mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di ci jiital jàngkat bi ndax nee na wax dëgg yàlla def na ci pasteef bu baax a baax ndax ci guddi am na ku wax ni génnal dañu laa namm kon mel na ni bi mu ñëwee def na lu tax kookee namm gi li wax am na la lu nekk la nekk na bu wér wér nee na jàng nga njàngam Pastef bu baax a baax nee na mi ngi la ci sant baax di la ci gërëm bu baax ci turu Serigne Souhaïbou ak njaboot gi ak taalibe yi ak waa daayira bi nee na ñaan gi muy sàkkoo tam yàlla na ko yàlla defal yàlla bàyyi koog xelam bàyyi kook baatam ci daraje xasida yi nee mi ngi santit waa dëkk bi bu baax a baax a baax ak waa daari tasu asid bii comme ni ko sëriñ Soñ bi waxe rek da ko waxe noonu ndax sëñ Baara Jenn ku jara sant la ndax dafa def lu tax ñu sant ko nee na muy wax sooy ni ko coone bi sëñ Baara am ba am lii coono boobu moo wàcc ci yow rek ak ni nga rek ndax lu baax yombul ndax dafa bëgg lu baax ànd ko ak ko àndal kon coono bi ba koy xalaat na ci nekk rek comme ni sooy gay waxee rek loolu rek moo ci am boo jiitoo dangay xool sa kanam ku dem nga dem ku demul ba amee pas-pas boobu rek lépp dana yomb ci yow nee ñaan gi nak mom jitu na lolu ndax ci la sax ak bëccëg ndax ñaanuk serigne bi ëpp na lolu kon nag nan takku waat gëna la xassay waat bu baax baax gëna jublu waat ci liggéey bi ta waajal ko bu baaxa baax ci fann yëpp kon nak mi ngi leen di sant di leen gërëm ci touru serigne bi di leen ñaanal lepp lu fay indi ci jangora wala bëgg-bëgg wala soxla sëriñ bi fajj ko ci doole maam Cheikh Issa jenn ndax neena na nako na na mi ngi leen di jéggulu di leen jéggal di leen ñaanal yalla bu baax a baax ñu gor gor lu baax rek takkaat la ta xamni nun fi rek lañu am kon lu way def nun nga ko defal ku fi jog ba nga xalaat bu baax ci dekk bi neena mom nga ko defal kon neen ñu ko sant di leen baye xel baax neena njabot serigne bi ñepp rek ñu ngi leen di baye xel kep ko ci gis boko la laajee xalaat dana la ko jox xalaat buñ ci amit it duñ ku ko laaj ndax neena yow xam nga ci dara bus bu ne dañ leen di jox luñ ci xalaat luñ ci def nañ ci gis njariñ nee na loolee nag na boppam la ko defal sëriñ bi la ko defal njaboot gii la ko defal kon nee na mi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sunu boroom defal ñu tawféex tey siir nee na sant na bu baax gërëm leen bu baax cant nag dafa amul lu ko ëpp waaye kon mu teg ko seen loxo ñu gën a góorgóorluwaat rek gën a jaamu yàlla bu baax gën a fonkaat sunu diine gën a fonkaat sunu taalibe amuñu lu dul ak taalibe taalibe nag mooy lépp ku ko am am nga lépp ku ko ñàkk amoo dara li mooy dëkk bi rek nañ ci taxaw bu baax ndax kat jamono moo tollu foofu kenn ku nekk yaay defar sab dëkk ñu door la caa fekk yaay wut say pexe yaay wut say xalaat te ñoom ñeen ñeen a ngi ci nee ñoom moom mii xam na ko baax a baax jàpp na ko ndax nee na dara ko ci kon li sëñ Cheikh Abdou wax démb rek nee na loolu moo fi nekk nañ ko bàyyi xel ñaari wér yëpp mën naa dox mën na defar dëkk bi mën na fa soxla yi te cant yi mën nay continuer te dara du ci yàqu kon nañ ci góor nee na pas-pas bi rek moo am solo nañ ci taxaw bu baax di sant sëriñ Bassirou jan mii moom sëñ Baara nee na bii ba léegi mi ngi te bu ko neexan mën naa toog ca kër ga mu bëgg nag bu noppee ñu tàllal loxo yi mu ñaanal nu ci darajey waajuram dara darajey maamam sëriñ Baara Diagne mu faj aajo yi nee na sant na baax gërëm leneen baax jërë ngeen jëf